maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi nekk ñëpp di mbëgte lool ñëwaat fekk la fii ci jotaay bii waa nga fa toog ndax ni ko sa waajur sa mag yu baax ci waxe woon moo yaay ay tànkam yaay ay bëtam yaay ay loxoom foo nekk moo fa nekk kon buñ la gisee dañu mel ni moom lañ gis man seenu taalibe bokk ci kër gi maa ñëwaat di siyaare si ni mu ko doon defee ak mu jot bu bisub sëriñ Touba bi teroo dinaa ñëw fii sàkku si ñaan sàkku si ndigal boo ma ko joxee nag ko bëggee ma defe ko noonu ngir dë wut si li nga xamante ne mooy ngërëmul sëriñ loolu moo war a ren ma ànd ak délégation bi ma àndal jóge ndakaaru ñëw indi fi téeméeri junniy masque ak 10 800 sel yu pomp yi ngir ñu mën koo def ci liggéey bi nga xam ni danañu dàq mbas mi ni ko sëriñ lu waxe man nag li ma leen di wax rek mooy li am solo mooy boo ma gisee may dox boo ma gisee may wax tuubaa rek laay waxal Touba rek moo ma ñor te yow mi yaay ki ma ñor sagub Touba rek laa bëgg te yow moom nga bëgg ndax loolu mooy sa sag ba tax na heure boo xam ne war nañoo jóg mu jëm ci askan ginnaaw bu fukk tedd ki njëkkee maay ka ciy topp ndax bi ñu ko defee ci mbas mi gouverneur maay ka fa toppoon joxe juróom million bi ko defee si mbirum ceeb bi maay gis topp joxe fanweeri tonne bi ñu ko defee si mbënd mi maay gis topp joxe fukki machine tey jii maa fi indiwaat lii loolu nag yow laa koy sant ndax nit ki bu santul nit du sant yàlla te li nga ma defal xam naa fi nga ma teg xam naa te li ko war lépp mooy bëgg gi ma bëgg Tuubaa ak taalib gi ma nekk dama sëñ bi ak taalib bi dong laay xool tey jii may wax ak yow am na ay wax yu bari yoo xam ne déggoon na mu jëm ci gan gi fii ñëw loolu tamit bëgg naa ñu leeral ko ndax tey jii bu ngeen a woon bàyyi li ma nekk ma bàyyi bu ngeen ne woon demal nga teeru ko dinaa ko lal ay tapis rouge jële ko Dakar ba fii ndax sëñ Tuubaa man na may may na ma loolu te si yéen laa ko amee te fas yéene koo teer fas yéene koo teer nañ ko bëggee te ganu sëriñ Tuubaa dañ ko war a jàppale dañ ko war a teeru ndax li mu defal fii sëñ Tuubaa ko defal kon tamit loolu wax naa ko pour ñëpp xam ni lii fii ñëw muy ki li mu def fii sëñ Tuubaa tax mu ko nit ki nag bu fekkee def na loo xamante ni maam sëñ Tuubaa tax ko yow mi si bokk bokk si war a sant jàppale ko kon loolu moo war a rek kàddu yi nga xam ne ñu ngi doon dégg yëpp may ñëw pour dalal sa xel xam ne dara du fi am dara du fi xew dañuy fi ñëw de sëñ Tuubaa lan gëm sëñ Tuubaa man lu ma ci wax lu leen di am seere ànd na mag président Abdoulaye Wade mu jum 2011 la ak maître ma dikkee ci biir oto bi xam naa am ñàkkul koy ñett waaye ma dikkee ma ngi ci biir oto ñu dem ba tolloog vingt nit ñi di ko yuuxoo ab daal daal di mer nag daa tàng ne ne li ñii de lii ñuy def baaxut ndax man di man bu dee sama jëmm ñu yuuxoo ma amul solo waaye rek sëñ bi moom dëkkam amul ganam ñu ngi ko yuuxoo loolu defuñu ko sëñ bi koy def loolu maa maa ko dund am na ñu ko wax fii ci ci biir kër siñ Tuubaa gi loolu yàgg na boobu mi ci xat-xat yu métti